président Ousmane Sonko man Mamadou Ba tedd febar son lol mangi am yene nga jappale ma mangi la yaakar nga jappale ma bëgg lol dimbali sama mbokk ndax suma febar bi dalut won dina bok ci ñi lay jappale damay tedd fi di gis sama morom di xex ndax yow ma am lu metti lol waye ma nangu ndogalu yalla tey jii bu fekkoon fekk na ma wér kon ku lay xeexal maa maa cay jiitu waaye lii la ma yàlla def maa ngi lay ñaanal ci sama xol lépp loo bëgg ci Sénégal yàlla na la ko yàlla defal képp ku kuy képp ku bokk ci Pastef maa ngi lay ñaan nga dimbali ma te yàlla tax Cheikh Bara Ndiaye maa ngi lay ñaan nga dimbali ma gis naa li def ci social yàlla na la yàlla teral adduna ak alaaxira góomi góomi moom daanaka li ma la li ma la ci wa góom yi munu daanaka mu munuñoo wér daanaka ndax góom yi yàgg na góom daaw ba léegi sama yaay moom xam nga da cee am yërmande rek topp ci rek di jënd alcool ak compresse di ci def pour mu bañ a am xet bañ a am dara waaye góom yi moom wallaahi lazim métti na amul benn heure moo may tëdd wallaahi yéegu ma métti ba nii may wax ak yow méttit laa billahi wallahi wal kitab ba ni may wax ay ndax gëj nga dem hôpital gëj na dem hôpital lu tax dama bi ma mujjee dem hôpital topato wuñ ma bi ma dama rang ci karo yi billahi wallahi wal kitab ni nañ may jappo ni tek ci tek ci yéré tek ma ci karo yi may rang nga gis ay nit dima jitu ci dugg ci di dugg ci bureau bi duñ ma nangoo may nan laay def woowaat woowaat nañ aw fa tànn ñu woowaat ma ñu ne ma rendi bi ñëw na ma ne leen munu ma munu maa dem. sa loxo yi mënul taal. ma loxo yi mënul taal. lan moo def nii ba tax mënul taal. wallaahi wal kitaab loxo yi moom nii rek laa ko gis. est que nii la meloon avant ngay feebar. loxo avant ma feebar. melul woon nii. loxo yi melut woon ni dafa moom feebar bi rek moo ma def nii waaye loxo yi feebar bi moo la def nii Mamadou waaye loxo yi melul woon nii ban sàggante la hôpital yi def ci yow. man moom hôpital moom yaakaar naa ne lépp lu ma yóbbee nii Pape Niang ñoo ko yóbbee ndax hôpital moom. jëlewuma fa benn tan man métit métit dañ ne ma problème dox nga am te métit bi may am diggante ñaari bët diggante yi laa ko yëg te ñoom fii lañu opéré fii ñu ne fii lañ def weñ man yëguma sentir ma weñ métti na rek waaye sant yàlla rek lan moo tax hôpital di lay faral di jox rendez-vous yu sori hôpital moom billaahi wallaahi saa buñ ma saa bu ma boo ñëwaati rendi buñ ma gisee moom ñoom dañuy joomi ndax wallaahi bi may génn hôpital génn dañ maa bàyyi ñu ne ma da ngay génn sama yaay ne kii mënut a génn ñu fanaanaat hôpital kenn sampalu ma soytaas kenn defalu ma dara dañoo fanaan hôpital rek ngir ne ngir ne man mënumaa génn waaye ba bis setaat ñu ne tey moom di ngeen génn force waaye taxi la ñu luye dañoo fay ay nit ñu génnee ma. ñu fay ay nit ñu génne la jamono boobu noonu métit bi ndax jotoon na wàññeeku. métit kay wàññeeku dafa metti métti ndax ndax buñ ma yëkkatee rek damay xëm man moom damay damay gis rek man moom jamono jooju damay gis rek ma nekk ci laal hôpital bi ba si yàgg ma gis ma nekk ci taxi bi ndax damay xëm. loo boo xamee moom du ko xam dara. lu bu feebar bi budul feebar bi lan moo nekkoon sa yéene ci sa yaay. man man sama yaay yéene yéene rek yéene rek laa amoon teral sama yaay teral samay woy jur liggéey rek laa buggoon man awma woon benn tàppale ci àdduna laaj leen kenn musul taxaw seen kanam ni leen Mamadou Ba moo def lii man yéene dimbali sama yaay rek laa amoon yéene boobu rek laa amoon taxaw sama yaay ndax sama yaay dafa son moom rek moo fi nekk daanak day togg day day bale day fóot amul doom ji jigéen amagut goro waaw. yooyu yëpp yàq daan defal avant ngay feebar. avant may dama ko daan jàppale man ma. ah mbàjju laa mujjee fóotal sama yaay bu ma koy tàggu boobu bi may ñibbi di nga bàyyi foofu ñëw fii feebar bi dal ma mbàjju laa ko mujjee fóotal ma ne su koo xool li tax ñu fulute li nga xamante ni moom moo di góom yi mooy góom yu mel nii laa mësta gis man Pape Niang ba ma dalee def social ak léegi góom yoo xamante ni dalay won squelette bi nga xamante ni moo nekk ci biir doomu aadama bi góom yoo xamante ni dalay won ay yax yoo xamante ni fi tànk korosé wu ci li nga xamante ni moom mooy mooco bi góom yoo xamante ni saxe na ci kaw boroom góom yoo xamante ni lekk na jëmmi boroom mi tëdd di du Ba góom yoo xamante ni tëraay bu metti tax na ay loxoom lemu ba mënatul a tàlli waaye li gën a metti ci góom yi nga xamante ni moom la du baa am mooy tëraay bi naam yàgg na waaye sàggante gi nga xamante ni moom la ko hôpital di sàggane ci jamono bu nekk saay su nekk ba moom du Ba hôpital bi nga xamante ni fa la doon fajoo saay su nekk ñu jox ko rendez vu bu sori ñu ko joxee rendez-vous bu sori boobu lan moo tax ñu koy jox rendez-vous bi mooy jàpp nañ ni balaa dat boobu di yegg si moom Mamadou Ba mu génn àdduna allahu akbar ko nyami sowona mo yemi dañata dole ndaare aduna koy fulti foyde ma gore jam ko heewi e dow bonde allahu akbar la ilaha illallah Yalla yor bakkan yàlla yor dund kii dee yàlla rek moo xam Mamadou Ba jeex tàkk ba ndurootul nit waaye làmmiñ bi leer naññ ngir yërmande gu mu am ci ay waajuram moom Mamadou Ba foofee ca Touba Aliya la nekkoon waaye ba mu demee ba amatul dara loo xamante ni mu ngi koy demee hôpital ci lañ ko daal di delloosi fii ci dëkkub cosaanam ci Sam Yabal muy gis saay su nekk ay waajuram saay su nekk muy gis papaam daw naa daw a daw lu ñu amoon ci ak jur jaay nañ ko lu ñu amoon ci ay mala jaay nañ ko lu ñu amoon ci ay matériel jaay nañ ko yaayam ni moom du daw benn yoon won ginnaaw doomam jile moom du Ba tey mu tëdd góom yi di gën a yokku góom yi di gën a metti waaye tëraayam bi li ci gën a metti mooy moom moodu yéene bi mu amoon ci yaayam daal ba léegi yéene bi ba léegi mënu ko mottali te maa ngi ñaan ci yàlla suñu borom képp ki nga xamante ni yaa ngi seetaan vidéo bii maa ngi ñaan ci kàttanu yàlla ki nga xamante ni tey moom la ñu wóolu dénk ko réewum Sénégal di ki nga xamante ni mooy monsieur le président de la république du Sénégal di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaye teg ci ki nga xamante ni mooy premier ministre du Sénégal di président Ousmane Sonko maa ngi lay ñaan loo dugg yàlla na nga ci am ndam yéene bi nga am ci Sénégal yàlla na la ko yàlla defal waaye tey kaawu Mamadou Ba mii dama ci woo képp koo xamante ni patriote nga képp koo xamante ni sa bëgg gii jëmale nga ko ci liggéeyu Sénégal bi jëm kanam te nga bëgg cee ànd ak ki nga xam ni mooy président Ousmane Sonko maa ngi lay ñaanal yàlla na nga ci am ndam liggéey bii maa ngi ci woo ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye bëgg-bëgg bi mu am ci Sénégal yàlla na ko ko yàlla suñu borom defal waaye Cheikh Bara maa ngi lay woote yàlla tax nga ñëw taxawu ki nga xamante ni moom moo di du Ba li ngay def ci social fi nga bëgg a jëmale réew mi ànd ceeg président Ousmane Sonko yal na la ko yàlla defal maa ngi woo ki nga xamante ni mooy Waly Waly Diouf Bodian nekk DG bu port bokk ba tey ci Pastef ngir lan ànd ak président Ousmane Sonko ngir yóbbu Sénégal ca kanam maa ngi woo ki nga xamante ni moom moo di Khadija Maykor nekk maire de la commune de Golf moom tamit nekk ci Pastef ba tey bëgg ànd ak ki nga xamante ni mooy président Ousmane Sonko ngir yóbbu Sénégal ca kanam xam naa ni li ngeen bëgg ci Sénégal gëm naa ni ak néew ju doole yi ngeen di dimbali social bi ngeen di def ngir dimbali ay néew ju doole gëm naa ni bu ngeen ci boole Mamadou Ba mii gëm naa ni lépp lu ngeen bëggati ci Sénégal yàlla defal leen ko maa ngi woo ki nga xamante ni moom moo di Guy Marius Sagna ki nga xamante ni moo fi nekkal néew ji doole yi moo fi nekkal ñi nga xamante ni ñu ngi leen di gorojal moo fi nekkal ñi nga xamante ni ñu ngi leen di xeeb ñu moo fi nekkal ñi nga xamante ni dañoo tawat tëdd amuñu ku leen taxawu moom Guy Marius Sagna nekk di ci bay waar wu ama am solo ñun de am nañ xel mu dal ñun ñiy yëngu ci social di dem ci néew ji doole yi di xam métit yi nga xamante ni moom la ñuy dund xam dëgg-dëgg Sénégal fi muy méttee ñun ñu fay dem di leen fa fekk gëm nañ ni Guy mari Sagna bu jotee ci message village bi dana jël en charge ki nga xamante ni moo di du baa waaye ñi ngi woo ki nga xamante ni mooy fadilu Keïta ba tey nekk Pastef nekk ku bëgg ànd ak président Ousmane Sonko nekk ku bëgg liggéey Sénégal fadilu Keïta ñu ngi lay woo ci taxawaay bu am solo ci ki nga xamante ni moom moo di du baa ñu ngi woo ki nga xamante ni moom moo di Serigne Mara Niass Serigne Mara Niass borom ki xam li ñëwagul Serigne marañas Niass borom xam-xam bi nga xamante ni lum la wax suba jàppal tey yàgg-yàgg dana ci egg Serigne marañas ba tey bëgg ànd ak ki nga xamante ni di ànd ak ki nga xam ni mooy président Ousmane Sonko ngir jëmale Sénégal ci kanam soppi doxalin bi nga xamante ni moom lañ fi daan doxee bëgg fi indi doxalin boo xamante ni bépp sénégalais dina gis boppam ci réew mi ci tradi médecine traditionnelle wala médecine moderne yéen yàlla suñu borom jox leen xam maa ngi leen di woo képp ku jot vidéo bii te yàlla rek tax maa ngi lay woo képp ku ma woo ci vidéo bi bul tax bu bu mu tax nga ni duma def de ndax ñooñu lañ woo déedéet képp kuy doomu aadama képp kuy wuyoo ci ashadu an laa illah illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah mbaa ngay wuyoo ci alléluia saint esprit maa ngi lay woo te yàlla rek tax nga ñëw jàppale ki nga xamante ni moom moo di Mamadou Ba Mamadou Ba li ko dal metti na yéen a ngi jàkkaarlook feebaram yéen a ngi jàkkaarloog tëraayam moom Mamadou Ba mii tëdd hôpital saa bu ñu ko joxee rendez-vous jàpp nañ ni balaa date boobu yegg si mu faatu jox nañ ko rendez ñetti yoon yoon bu ci nekk yoon bu ci nekk ëpp na juróomi weer te ba tey Mamadou Ba mu ngi tëdd di ñaanal ñi nga xamante ne ñoo tawat ndax tawat na sonn na mi ngi dund ay métit moom Mamadou Ba xam na ni jamono bii mu tollu métti na lool ci moom waaye xelam daju deñul benn yoon ci sama jëmm ju xeebu ji saay su nekk mu di ma nemmeeku saay su nekk mu di ma ñaanal saay su nekk mu di ma pap maa ngi lay ñaanal yàlla na nga jóg ak jàmm ndax sa jóg yow sa tëdd arrangé wul néew ji doole yi ndax ba nga fi jugee ba léegi keroog laa gëj a dem hôpital allahu akbar allahu akbar maa ngi ñaan ci yàlla képp ku nar a dimbali ma ma du baax yal na la yàlla teral àdduna ak àllaaxira maa ngi ñaan képp koo xamante ni jullitu yàlla nga maa ngi lay ñaan nga ñëw dimbali du baax am na rendez boo xamante ni war na dem hôpital waaye ñàkk ba ñàkk lu ko yóbbu moo ko tax a tëdd fii mu ànd ak yaayam ju gore ji ak papaam dañuy dem di jënd ay compresse jënd ay bétadine jënd ay alcool bu ñu ñëwee du ñu sol sax gant waaye li ñu bëgg rek mooy taxawu ko ci góom yi di ko wàññil métit bi ndax bëgguñu benn yoon mu saxe bëgguñu benn yoon Mamadou Ba di yëg ni dañ koo sàggane ba nii mu tëddee nii moom Mamadou Ba mi ngi am courage ni moom gëm na ni dina wér te liggéeyal na yaayam mu ngi nii da daan fóotal yaayam moom Mamadou Ba di dem marché di toggal yaayam ngir lan xam ni yaay la te yaayam kenn mënu ko fay ak lu mënti xew mënu ko fay